Vamos, Yamsela! di ko yéene te yàlla na ko jik sëy bi yàlla na bokk ci sëy yi takk ca aras ñoo xit lii ndax dafa baax dafa yaatu gis nga nit ñi ñëpp ko ñëwal li may wax chaque jour rek loué bâche yomb na loué siège yomb na waaye ay nit kenn mënu leen loué yaa jëflanteeg ñoom loo xam ne ji leen ko ba boo xew leen ñëwal la xoolal artiste yëpp a ngi nii kenn manqué wu kenn manqué wu dama sama xolo sedd te ku ci nekk ci artiste yi jël na bés bi def ko ni comme sa bés lu nekk jaral na leen ko lu ne def nañ ko ci vraiment mënumaa wax sax da sama xol dafa sedd yàlla dafa voyagé woon waaye moo tax teew ñëwut mais ñun ñi ay doomam représenté nañ ko seeni ñëw na fi amiko la ñëw na jobbe sëy ñëw na waa famille mère Diall yëpp ñëw nañ ba ci caméraman bi sax bi caméra mère Diall ñëw na preneur de son bi ñëpp ñëw nañ équipe bi ñëw nañ kon mi ngi mel ni mère Diall ndax ay doomam ñi ngi fi vraiment waaw tax te ñoo xit dañuy liggéey yàgg nañ xamante mais dañuy liggéey yàggul dara ñu ngi liggéey mu nekk nit ku baax nit ku am yitte nit ko am yëg ci nit nit ko adorable nit koo xamante ni dafa am respect ci nit man nag yëkkati ma yombul waaye moom jaral na ma ko Tapha Thiam parce que dina kaf dina ree te man du ma wax sama tur ñoo xit ba ma ko xamee bi léegi du jaar sama tur sama jigéen rek la may woowee te sama jigéen googu da koy dund ak man loolu moo tax ma ñëw fi di ko ñaanal mook soxnaam si yàlla sàmm leen yàlla barkeel sëy bi njaboot bu barke topp ci sëyu artiste nañ ni sëyu célébrité célébrité boo xasee ba siiw sa dara dootul làqu dootoo am vie privée dootoo am dara mais li may wax ñooxi rek man ñooxi wóolu naa ko xam nga lu tax parce baax nit ku baax la li muy baax triché wu ko li ñëpp wax mooy dëgg en tout cas li ma leen di ñaanal mooy suñu borom sàmm leen moom mook borom mook jabaram boo xanaa kontaan rek olof Ndiaye naan bis buñ doon xaar ex na nañ ko rimbax papa mooy bisu ñooxit bi ñooxit dafa nekk nag nit ku baax nit bu ëmbul nit bu yaatu nit boo xam ne xeebalul kenn soxlaam yàlla xam na ko nu mu toll noonu la toll ñu koy suivre nag wax dëgg yàlla muy def lu neex muy def lu baax nag mu nekk royukaay aussi ci métier bi wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla daal sëyam bi mu dugg rek yàlla na ko yàlla barkeel yàlla def ci njaboot bi barkeel ci daraja Seydina Muhammad boo xanaa mu muñal jabaram jabaram bu euh, muñal jabaram mu yaram jabaram jabaram mu muñal ko loolu kese la parce que sëy moom métti na méttiwul su amee compréhension seen biir rek yaakaar naa problème du am na ñuy yëgoo ndax wolof Njaay nee na waggaal ak yëgoo kii euh, euh, jabar kii soxnaam na topp ci ginnaaw jëkkëram xam ne nag dafa nekk ci milieu bu doy waar bu mu indi euh, xolu fiiraange ndax ku bëgg fiir nag mais na ci na ci na ci na ci yem daal na ci na ko na ko yemal mu bañ a ëppal parce que ñoo xit nitu nit ci la léeg-léeg di nga gis sax ndeysaan mu nekk ni tooga moom nga jàpp dafa séq moom dara séqutam moom lu may jàmm ak salaam il fallait nag tam loolu soxna yi ak euh, borom kër yi def loolu seen bopp yi nekkul danga nekk ci milieu bi lu neex ngay def nekkul da nga nekk ci milieu bi lu la neex ngay wax ay nit yu responsable moo ci nekk ay nit yu baax ay nit yu ëmb nit yoo xamante tey jii métier la ñu def euh, théâtre bi lu ñu am daw yóbbu seen kër yi yor ci seen yaay yor ci seen papa yi kon nag am compréhension am communication bu baax la su amee communication rek euh, macha allah mais li ñëpp wax rek xam nga dañ ne nit ñi kenn moomu leen mën ngaa xewle luye ay seize mën ngaa xewle luye bâche mais nit ñi kenn mu leen a luye te euh, Tapha Thiam ñooxit moo ñu ko ji wallaay lazim moo tax ñu def derangement ak déplacement jóge fu sori ñëw ba mbaaw ci xel ndax Tapha bu baax la macha allah li ma koy digal mooy mu téye jabaram jabaram téye ko ñuy muñalante te yàlla rek tax sey neexul kon nag ñu ngi ñaan yàlla a yem moo ñu day neex mais li ci des lépp day naqari te mu jàpp ne jëkkëram artiste la bu bañ a dugal affaire de fiiraange parce que ñun artiste yi macha allah boo ñu yoree boo ñu comprendre du dem parce que suñu tànk yi ñoo ko moom fu la ñuy dem fu la ñuy ne kon mu comprendre jë yàlla dafa leen cat may leen njaboot bu barkeel xam nga ay nit moom bu ñuy ànd te ànd bi di rafet c'est très normal aussi ngeen di demlante euh, damay gis des fois gis nga man nit dama koo jox cër nit buy takk soxna xalaat la rek pour nga ñëw ci bésam mënoo koo fay euh, nit kuy ngénte aussi ndax bés ba bés dellu si yàggul ki la ci xalaat pour nga ñëw aussi mënoo koo fay foofu rek laa ko teg ba tax man bés ku ma ko wax duma ko tuutal voilà ndax ndax lu nit mën a am ci àdduna te amoon nit ñi amoo dara kon am nit ñi rek mooy njëriñ li loolu moom moo tax man bu ma nit waxee ngay mag di ndaw bu ñu sekkee kóllëre wala ñu sekk teraanga ba waxee sa bés ñu waa Thiam nag dañoo yàgg ndax ñoo nga xamante ni depuis 2010 2011 ba léegi yàgg ñoom yéen a ngi yàgg ngeen bokk même milieu bi ngeen nekk euh, c'est très normal lu nu xewle bu nu la ko waxee nga teewal leen di ko ñaanal ci sëyam bi yal na yàlla jubale koog soxna may leen ay njaboot gu barkeel ci daraja yonent yàlla Muhammad juste nag mooy euh, ñun ni nu ko xamee bu doxee noonu gëm nañ ni du am problème ak soxnaam ndax Tapha Thiam nit ku woyof la barki Cheikhou Tidiane Tapha Thiam nit ku woyof la nit ku laabiir la nit ku yërëm doomu aadama la aussi euh, condition yooyu muy doxee ñi nga xamante ni dafa dajee ñoom ci aar bi kon bu ko doxalee ak ki nga xamante ni da koo takk soxna rek jàpp naa ni sëy ba dina neex ku jigéen ki ñu di ko ñaax aussi di ko wax ni ko sëy ak artiste neexul c'est parce que ku nekk ngay dugalanteel fu ne fu ne la sa borom kër di dem heure bu nekk kon na tee jëkkëram ji bu baax a baax a baax te xam ne ab sang la yore nit ku baax mooy Tapha Euh, li ngeen def nii rafet na tey ñoo xit ñëw nekk artiste euh, am xew donc euh, yéen ñëpp ngeen bàyyi seen li ngeen def ngeen ñëw teewal ko donc dafa rafet da koy kontaan ñun tamit ñi nga xam ñun ñoo ko yar ñoo ko maanaam taj te ko ci aar donc bu amee lu mel ni amee ñëpp ñu daje fa manqué wul loolu sant yàlla te yàlla yàlla def ba bu ñuy tuddaat si doom sax ñëpp ñu ñëw kenn bañ a manqué yéen waa tamit moo ngeen li moo ngeen làq seen kër ñëw rek solu toog mais li ngeen def dafa rafet ñoo indi seen caméra di filmer ñëw di def euh, jël détails yeeg lépp daal lu am solo di lay wan ne aar bi ñëpp ñoo bokk man nag aar bi bokku ma ci maam sama yaay moo ci bokk rek man dama fay taxawee tey taxawaayu maire Diall ndax tey ma nga ca Amérique nee ma damaa bëgg nga dem taxawal ma foofu ñu xam ni nekk ma fa waaye ñëw dem nga amicole la ñëw na famille bi ñëw na doo tax ma ma ñëw ci nag wax si moom day rafet wax si moom day yomb mu nekk sama góor nekk sama càmmi lu yàgg dëgg la ku ni amicole la ni ñëw xit cër bi ba ko ñëpp yëgee dañ ne ah war naa mën a nekk warna naa mën a nekk yaayam nekk ku baax ya maa ne càmm daan ànd sama yaay yàqu si dara yaayam ma ñoo ñoo xit mënoon naa décider yaayam dinduko wala ay mbokkam dinduko ko dan dañ ni ko fa nga wax fa nga fa nga fa nga ko dal fa mu dal ni wau moo wara sama teewaay tay sama góor ma fas yéene nag pareegu barki yonent bi dama jooyo joy ba ma ami ko loy joy ni ma yow lan ngay jooy yow li bett na la sama digganteeg yow ma ne ko Tafa da ngaa ami am ami doomi nday ami doomi baay cër bi am ñu koy yelloo nga jël ko jox ma ko. waaye nag war naa mën a nekk càmm Babel Demba Thiam man nee naa ñeeño bu gën géer barki yonent bi gis nga ñoox nit ku baax la nit ku yaru nit ku teey ñoox dafa géere barki yonent bi dafa géere mu nekk nag man daal xoolal sama xol dafa fees mënu maa wax lépp Tafa suñu doom la. bëggal ñu bopam jox ñu respect di def ak ñun lim wara def ak ñun musul merlo mak musul tangal xolum mak ñukoy ñaanal seyem bi yalla barkel yalla ci si am lu kawé ndortam ci barke Seydina Mohamed kontan nañu bis bi neexna lepp neena gañ yalla yalla dundu na yàlla bay si barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñepp ñëpp ko. muy xalé bu ko mérito ndax ci mbaxam ci yarom ci yiwam ci bëgg ñepp ñoo xit bu génnee en dehors personnage bi danga naan kii du moom ci respe ci mën a jox ni cër kon yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla suturaal ko boole koog soxnaam si ñu sakkorloo ni asamaan ak suuf pour ñu dem faaw ñu xam ne star stable la ko gën pour ñu dem faaw ñu xam ne aar du course vitesse mais course fond la ñu bokk li ñu bokk ndax tey ji ñun ñëpp fi mu ne benn la maanaam amul benn différence moo tax bu xew xewlee ñëpp ñëw dañuy kontaanaat ndax ku sañoon boo xewlee gis say mbokk ñu di sant ku mel ni Ibrahima Mbaye Soppe macha allah nit ku baax ku yaatu mën a yaatal moo tax keppaaru maamam bi na ko ñëpp préparé soppe lépp lu ñu def nee naa la boo mësaan dem ci programme otoom ngay tegtaloo 40 43 matricule ba kon kooku macha allah moo fondement lépp moo war a artiste yëpp roy ci moom ba lu nit xewle ñëpp ñëw. dinaa ci sawar ndax sama doom la yaayam bu ñu koy tuxu suñu ay mbokk dafa nekk xale bu ndaw teel a am jom. doxee tànk bu rafet ci koñ bi di waxee lu rafet di dal ndànk di nuyu di waxanteeg nit ñi jox ñu cër nag yàlla boole koog jaar ñëpp dañ naan jaar mooy yaayam jaar sax mooy yaayam mais maane wanewul benn côté ne moo ko jur dafa wane ne rek jaar mooy yaayam. Moustapha Thiam kooku plaisir rek lay nekk si man ndax Moustapha sunu rakk la sunu xarit la sunu mbokk artiste la te olof dafa ne lu dagg lu ne morom ma lay fekki Moustapha xale la waaye xale bu loxoom set la donc bu ko yàlla suñu borom boole ak ñun mu jox ñu cër bëgg nu fonk nu respecté nu day ñëw suma kër toog du jóg tant que juguloo yow. du jóg day toog te te nag milieu bi ñu bokk ñun ñoo ko bokk mais mun ñu ko séddoo te liggéey na ci loo xamante ne si su ko neexoon mu yëkkati magam xale la mais su ko neexoon mu ni mu ni non li grand yi def laay def ci comprendre xëy na sax mu ëpp nu dayoo ñun xëy na ñoo ko mag waaye moom mën nañoo ëpp dayoo parce que yàlla suñu borom mooy dogal te li mu dogal ab jaam da koy nangu xale bu am talent la xale bu am jom la xale bu set loxo la bu xewlee dafay rafet nit ñu teew waaw mariage célébrité yi mariage la comme comme toutes les autres mariages hein yàlla suñu borom mooy dogal sëy moom mooy tas sëy te sëy moom yaakaar naa ni bu buñ ko fasee rek suñu borom la kon bu yàlla defee ñoom Xaadim ak mari su sëy war nañoo sëy artistes yi war nañoo mën a takk artistes yi ndax ñun la ak ñun kese kon pour ñu takk leen day gën a yomb rek mari su sëy ak Xaadim mariage bu nice la dama leen di souhaité rek suñu borom dafa leen jàmm dafa leen tawfeex ak taysir dafa leen sëy bu barkeel dafa leen njaboot yu bëri yu góor ak yu jigéen yu bari te barkeel ci barke Muhammad sallallahu alayhi parce que war nañoo mën a sëy ñoom ñaar mu neex waaw li ma leen dénk Marichou laa koy dénk parce que Marichou jigéen la tu comprends et que mbubu artiste kenn du ko sëyaale mbubu artiste yëre la boo xam te ne si yow jigéen booy dugg sa biir kër nga koy simi ci bunt boo duggee doon jigéen sëyal sa borom kër xaadim ma koy dénk moom borom kër la góor la dañ ko jël jigéen jox ko war ko mën comprendre war ko mën muñal war ko mën dëkkal war ko mën dëkkoo comprendre ko ci tout les plans nak parce que jigen mom ku ne xam na ni seen xol day matadi ci bu len nexé ñak neex ko mu len ñak neex ñun mom la leen wara muñal kon khadim lool la koy dénk mu muñal ko ko diko wax mom gentleman la ko waxee rek nexul muñal mom buñ koy wax rek du lu neex muñ lo kenn sa yu la muuree ni la muñal rek c'est parce que fa nga jëm nexul loolu rek dafa nekk firnde bu wér ci ni sëy neexul donc yow miy jigéen yaay demaale loolu da xam ne sama borom kër kat ku yàlla suñu borom tànn la parce que ñun attention ah sëy ak ñun yombul de sëy am jëkkëru artiste aussi yombul ndax ñun la yàlla suñu borom wàccee ci réew mi mu doon loo xamante ne si du ku mu nekk rek nga nekk artiste. du ku ko bëgg a doon it doon ko ndax ñi ko bëgg a doon mun na ko doon bari na kon bu la yàlla seen borom boolee ku siiw laay wax sax ku siiw nit ku siiw yow yaa xam ne man suma jëkkër dafa siiw dama koo bëgg bokkule kooku ñu bari ña ko ko leen nag muy ñi nga ñu ko bëgg. jàmm ar xewal sutura. ah Saadatu ni nit ku baax la nit ku gën ah, ay at ñoo ngi liggéey man moom tubaarkàlla nit koo xamante ni wax dëgg yàlla xolam dafa rafet moo tax dañ koy ñaanal jàmm salaam rek ak xéwal waaw moo xam li mu bëgg ci sëyam bi yàlla na ko yàlla defal ci barke borom Touba loolu lañ koy ñaanal. bés bi fi mu ma yóbbu sori na fi mu toll ci man rëy na lool ndax ñoo xit moom sunu sunu xaritoo du publiquement mais invisible invisiblement la ci suuf la ne man ak moom ci suuf la ñu xaritoo. sunu borom def ko duma gantal dara am du gantal sama dara ñi am contante ak mbikté nañ ci teew ci bis bi artiste ñew mbokam euh lolu sant la dal to ku gis bis bi nu mel nga xam mom borom bis bi ani mel ni mu toll rek le bis bi toll na jëfam toll it le bis bi toll di ñaan yàlla ko ak soxnam ñu am ci njabot gu barkel sunu borom am na mën na ko ta yalla ko def yow it yàlla yàggal la fi. sama koy conseil objectif principal muy guddigi ne na ndox mu bari. Euh, ginjeer aussi am na importance donte mi ngi doog a tag waaye euh, dafa am solo ndax ñun ay ancien gloire la ñu def nañu 19 ans de mariage kon am nañ ci expérience euh, li ci des it mooy mu nangoo muñal soxnaam rek nangu ko comprendre waaw te xam ne say yombul nee na cin yu mag lii bu tay bi ñëpp a ciy jàpp waaye cin yu ndaw ya moo jëra lijjanti yàlla na ko yàlla yombalal cin yu ndaw ya te jubale koog soxnaam li ci bëgg ak li mu ci namm yëpp suñu borom defal ko ko incha allah. nekk sama wóola rek du yàgg ma nag moom nag torop nag mu nekk loo xam ne du tey du yàgg la kon tey moom su xewlee am nañu yëg-yëgu ak xolu ñëw fi. moom bisu nit la loolu dafa yàgg loolu ñu koy ñaanal sëy na barkeel mu am ci njaboot gu barkeel dafa yàlla xolom rek la koy fay parce que nit ku baax la nit ku simple la la nit ku bëgg ñëpp dafa amul xaar ma dafa jàmbur man moom sama lakkal la man la a la suñu jàmmiñ xarit la ba pare mu nekk benn doomu aadama boo xam ne dafa wàccee boppam rek dina la ko yéene mu nekk nitu nit ñëpp nag ñëpp bëgg ko jàkkaarloog ñi nga ñu ngi seetaan. dafa bis bi tey nan la la def parce que man artiste yëpp ñëw na ñëpp teew man jékki-jékki naa ba ci yàgg man Tapha Thiam lan la labal nit ñi ba artistes yi ñëpp teewee nii. waaw ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax rek man defaluma leen dara sax waaye ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo am yërmande rek ñoom ñoo ñoo ma yéene taw ma seen fay dama leen di ñaanal rek taw feex ak tay séer bu baax a baax a baax a baax waaw kontaan naa lool yàlla xam na ko. waaw dañ naan nag bis bi tur borom lay lay tollool waaye nag sa bis bi wane na ni tuutoo tubaarkàlla wane na ni sa xol baax gi nga baax ak rafet gi nga rafet xol am yéene gi nga am yéene ci artistes yi moom la la artistes yi fay ñu ga takk soxna nag mu nekk wax dëgg yàlla li ñu lu lu ñëpp bég ñoo ñu lay laaj sa soxna si nga xamante ni moom nga takk naka nga fas yéenee yore ko naka nga fas yéenee dundal waaw comme ni ñuy yoree soxna yi rek ci ci ci ci yërëm ko teral ko yiir ko ah yaatal ko ah taxaw ko lo rek lo rek lay doon taxaw ko rek te yalla tax ak l'islam lislaam ak ci ngor ak ci diiné ak ci ak ci mbax lo rek lañ fas inshallah incha <laughs> kon baax na ñoom en tout cas ñong lay ñaanal di le souhaiter heureux ménage di la ñaanal sey bu barkeel. tubaarkàlla wa ñox nak da nga jaroon man ñeneen ñi sa ginnaw ak man mi nga xam ne maay saa woo ñoom nan nga fas yéene def. ay takko ngeen. manam yow ñepp ay takko <laughs> ñepp ay takko